xaqiqa looloo tax mu garaaw yàlla boo ko waree jël mu war a nekk sa cëslaay nekk sa yaakaar nga xeeb ndimbalam ba wute feneen ndimbal yow jullit du yem ci seetaan waaw day fexe ba ba sat la sat la waaw ba nga sonn lool waaw ah. mm-hmm. waaw sunu mbokk bopp yi ndeysaan sëriñ Moustapha Mbakke ak sëriñ Cheikh Absa Mbakke di sunu famille baay bi ñu leen waxoon sëriñ Bachiru Mbakke tabaarakallahu dañ doon ñaan pour yewwi ko seen teewaay tabaarakallahu rafet na daara ji seen daara maam yu baax yi ñoo ko bokk kon nag seen teewaay fii njaboot yi bég nañ ci rafet na ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla yéen it jox leen seen leeri maam te yàlla mottal yi wëllëre ji fa tabarakallahu ngeen gërëmal ñu kii yi te gërëmal ñu ñi ñu ko bokkal ñëpp tabarakallahu jërë ngeen jëf fa tabarakallahu lisaan ñu baax lañu waaw ñu baax lañu dëgg yàlla ñoo am yéene am Euh, wax dëgg yàlla cofeel di sonn lool ci sunu diggante ak ñoom ñaari fan yu ne ñaari fan yu ne ñaari fan yu ne ndeysaan ma ñëw kër ga ñuy jox ma këyit ni ma sa mbokk mi moo ko fi yónnee nee na daf la sopp rek nee na moo tax mu yónnee la ko ay téléphone ma ngi nii tabaarakallahu bis bu ne presque par deux jours yu ne deux jours yu ne ñoom ñëpp tabaarakallahu moo tax na rek ñu ngi sant yàlla bu baax ñaan yàlla yàlla yàlla yokk sat bi wa tabarakallahu mu mel ni nag comme yàlla boo ko fi bàyyee bu doon day seetaan kese kese sax affaire bi simple mais dafay sat te la sunu moom bu baax ba daan wax sëriñ Cheikh sëriñ Abdou Mbàkke ñaari baat bu ci ne am na solo benn bi góor gi tudd na ko lu yàgg beneen bi fàttali na ko ci gàmmu gi bi mu njëkkoon a tudd bu jëkk mooy ko amatul foo wéeru ba la yomb ko amatul foo wéeru ba la yomb kon nag jàpp ca la nga am wéeru ca ba kenn du la mën a bëmëx fayda la bu ñaareel bi mooy li mu ko wax ni ko doom àdduna tund la yàlla xur la ku nekk ca xur wa nag ba yàlla nangul la fu borom tund nekk dana la fekk ca xur wa waaw mag la waaw waxi nu mag la dama am ñu nga xam ne dañuy daal di teer rek fàtte li ñu am mel ni lu ko xeeb dem di wuti lu ñeneen am moo nag dañuy dem bu mujj gi ñu ñu am problème parce que ñu wuti lañu am bis bu ne yàlla di leen ca sagal moom ñu ko wuti woon te bàyyi li mu am lii raw ko leneen raw ko ba ca des nag mooy tey di jullit yi xewal parce que booy seetlu dafa mel ni léegi jullit yi seen xibla yépp mooy Amerika Amérique léegi mooy seen xibla manaam bu ñuy julli moom kaaba ga la ñuy jublu waaye problème bu ñu amati ci àdduna Amérique mooy xibla bi boo amoon Amérique passe au moins au moins les anglais bu anglais yi passé nag sunu mbokk yi soog a ñëw ah ñoom nag ñoom ñoo gën a garaaw ñëpp ah matt def rek la ñu mën mooy français yi mu mel ni léegi ñooy xibla jullit yi maanaam li ma leen wax xam ci lu bare mais la guerre du golfe lan moo koy indi mais américains yi loolu lañ doon wut scénario bi ñu tëral ci guerre du golfe yépp mooy fexe woon ba am occasion bu ñu mën installer. installé woo ci Moyen-Orient def nañ ko léegi seen lépp ci ñoom lay jaar ba démb maa ngi koy wax ci oto bi bu ñuy ñëw démb ci Kaolack dama jaaxle yow li jëm kañ seen avion boobu daanu ci Bahreïn Golf Air bi daanu ñu ni boîte noire bi dañ koy yóbbu États-Unis pour ñoom ñooy seet boîte noire bi ku dem ba wut ay compagnie wut avion wut ay mécanicien wut lu ne

parce que pilote bi ak tour de contrôle bi ci arab lañuy waxante waxantee lu ko yóbbu États-Unis waye nak ma di la yëgal ni nak amna ko xamni balay lax jaay lax lek ba noppi américain yi bal ñuy lax di jaay julit wala français yi di lax jaay julit wala anglais yi laax jaay jullit bi dañuy lekk ba noppi kooku nag boo ko xamee ci moom nga xam sa bopp ndax du la jox mukk lu mu amul fukkam te ci seen alal lañ ko jënd jënde lu jullit yépp le monde islamique seen alal yépp mu ngi ci loxo tubaab yi nga commencé ci ci ci ci Arabie saoudite

wa yoon nag bi xisbihimi sayid cheikh bis bu ne mu wax ma ko ni man na ngeen bàyyi xel parce que arab yi arab yi yéenewuñu yonent bi ndam danañ tudd turam nii rek ci kaw mais yéenewuñu ko dam moo tax li leen di dal di leen dal loolu lay tax kon nag bu ñu la waxee loolu du tax nga ni américain boo seen nga ni yéefar araam du tax français boo gis nga ni yéefar xaraam du tax it anglais boo gis nga ni yée yéefar xaraam déedéet jullit dafa am lu ko yàlla jox jullit liko yàlla nangulul moy mu jëm jel pass passu kenen lol lan alquran nangul ak yonent bi me li ñu bëgg ci mom moy fahik ma jóge té xikma bu am njëriñ na jàpp ne am la hikmatu dallatu mu'min fa ayna wajadaha axadaha waaye jël xikma nit it dafa am lu mu laaj kullu inain bima fihi yamdaxu dégg lay laaj ndox ndox dencu dencoo ko tax a dem ci ndab ndox bëgg a dencu moo tax mu dem ci ndab bu demee ci ndab nag dana xereñ ba boo ko fa fekkee defe ni couleuram la yor waaye bis boo ko xellee yëg ni couleuru boppam la yor xikma bi noonu lañ koy mën a defe comme ni ndox di demee ci ndab dencu fa boo ko fekkee ci biir ndab li nga ne ay ndox mi day fekk couleuru assiette bi moom ngay séen mu mel ni moom la waaye boo koy sotti yëg ni couleuru boppam la yor moo tax koo man di jaxaseel ak loo mën di jël ci moom stratégie boobu rek nga koy def mais bu mu la dindi ci li nga doon waaw que wolof kat ma wax ni sukk nag du tere yóbbu say um su du tere yóbbu say oom ah. ba ca des nag moo di bala ngaa ji da ruuj ba noppi ku bëgg a ji bu set te am solo da ruuj ba noppi waaw ah. mu mel ni lislaam bi nag tey laaj na nañu ji fi leneen na beneen ji mais foog ñu ruuj dama yéen ñi nekk ci tool yi am na lu ngeen ci xam tuuti léeg-léeg ngeen lukkat léeg ngeen am lu ngeen ngor waaye du doon yëpp am na yoo xam ne fa ngeen koy bàyyi lislaam bi it loolu am na yoo xam ne fa lañ koy bàyyi mais yi ci amul njariñ fokk ñu jëm ko dégager pour seet nag lu am njariñ lu ñu mën a def à la place moo tax baatu sama bopp mën a gënal du bañ naa la baatu sama bopp ma la gënal du bañ naa la fokk ñu xam ma la gënal gi ci lan la tegu xamuloo ni koo ëppul ngëneel koo ëppul ngëneel bul ko ni sama bopp ma la gënal lu am solo la koo ëpp ngëneel rek bul ko ni sama bopp ma la gënal ndax annabiyu awla bil muminina min anfusihim jullit bu ne nangu nga yonenti bee la gën lu tax parce que xam nga ni yonenti bee la ëpp ngëneel kon nag doo topp wax bi rek sama bopp ma la gënal du bañ naa la déedéet boo ëppul ñëpp ngëneel rek seetal ku la ëpp ngëneel mu gënal la sa wax in la waaw waaw ci kaw la mu la gëne mu di la ca dimbalee waaw moo tax nga ne doo ko ni nag sama bopp ma la gënal daloon na Umar ibnul Xattaab ba mu jékki-jékki te dégg ga yegg ko ca mu ni yonent bi day dëgg yàlla li ma wër yépp yaa ma leen gënal waaye sama bopp ma la gënal nag du bañ naa la yàlla ni ko des na yonent bi ni ko des na wala maa nangu ni jullit nga dëgg rekk man sama jëmm gënal la sa bos waaw mu nangu ko to xam ko moo tax wàllu kilifteef ci ñu ko delloo ci kilifteef walla wàllu njiit ñi ko dellu ci njiit du yenn du yen relation la lu jara dégg la mën na ñun ci wolof lu ñu dégg njiit mooy buñ ne yaay njiit li rekk yenul lépp nit ñi ñoom toog di naan ataaya wolof loolu la xam ci njiit moo tax njiit du yenn relation la alaaka la

waaw sunu mbokk Qurayshi Ñas ak Serigne Abdou Malick Ñas waaw fils de sunu bàyyu bopp ba wala sunu maamu bopp ba bay Ñas tabarakallahu ca Medina Baye ñoo doon ñaan pour yeewi ko incha allah ñu di leen sant bu baax ñoom itam li ma wax ci bu njëkk bi rek moo valable ci ñoom daara ji seen daara la tabarakallahu seen wëll rek ca maam yi ba ci bàyyi ñëpp nettali nañu leen yaakaar na kilifa gu tedd ga di leen nettali Cheikh Al Hadj Malick ca affaire baayam Mam Ousmane ak la ca xew ba mu ca bëggee leerlu ah fa tabarakallahu seen maam la binde lettre sant ko ko Alaaji Ablaye Niass ak yañ ca échangé ak lettre yaag yépp mu ngi ñun ñu garde fa tabarakallahu gannaaw ba loolu la jógee seen way juru bu tedd bi bàyyi ñas digganteem ak Seyid Cheikh yaakaar naa ni ñi xam fii yëpp xam nañu la fa jaaral kon nag tabaarakallahu ñu leen di sant waaw ok relation jiitu na nit ak nit lu jara seetlu la relation bi ma leen wax ci diggante kili njiit ak ñi mu jiite relation bi baatu relation bi jiitu na nit ak nit ñun ñoo amul seetlu yàlla mu njëkk tudd relation bi am diggante safara ak saxaar le feu et la fumée. Ah, lan moo tax fu saxaar ah fu tak tak jollee sahar génn relation bu am la diggante tak tak bi ak sahar. même relation bobo moo dox diggante ak taw même relation bobu moo tax diggante guddi ak bëccëg même relation bobu moo tax diggante jant ak weer mais def di relation bu nga xamni dafa tegu ci manipulation waaw tak tak ak c'est seen and relation bi dafa tegu ci manipulation

وغيره والأرض والمريخ والأجرام تأتي لعين مراقب من نظرة فكما اقتضاه رعاية ونظام كون أمنا لو مانيبولي ريلاسيون بي بموي دوخي نون واه مي بودي نيت ريلاسيون ماك نيت دو تيغو تي مانيبولاسيون تي كوبيراسيون لاي تيغو coopération bi moo tax yàlla sunu boroom li ñoo tudde néegu sëy bu dee ñaar ñi ko séq fexe ba ndekki am añ am reer am bu guddee ñoo am fu ñu tëdd bu dee seen yitte ci loolu rek la yem nañu jàpp ni kër ga hôtel la ah, ah.